ñëwaat incha allah jeunesse sport la commune de Thank you. Ayo, lagi turun dong, lagi turun, lagi turun dong. voilà donc C'est parti directement dans les buts. Quelle intervention. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Marlam Bayba. Corner day dem ñu jëla ko. Ay Eh way ah? sam. No gore eh way. Passe en profondeur. Est-ce que terre? Non. Menteri buruh tu lepas itu, betul jadi saja batai dia hukum pada rapor Newar Patilonu. Bidaf tiket agak ambil ini juk, dia pun bidaf turne turne wat sani jauh walu jaman jah. Satiri direct mata lebra di punya. Selape, apa ini termus? Selape. Bapak nak disan. ASC bii nga xam ne moom moo jóge saate ndax ay nit nañ ñu dal ay nit lañ yu baax ay nit lañ yo xamne ci ay nit yi waleur lañ ndax kenn ku nek xamna ne nga ñew ba ci terrain mu leer na la ne fi nga nek sécurité amu fi nga mëna taxaw football match bi bam jeex te amo ci ben erreur ñi ngi ñaan yalla ren jël nañ ko ci seen loxo waane ëlëk yalla na leen ko yalla jox ndax nun am nañ yene ju toll nonu ci yéen ndax gis nañ seenu yar Daaru xofor nak manam dama leen di sant di leen gërëm ndax it falaa dëkk waane tey ñaari équipe yëpp benn lañ mën ci man ndax dañ ma tuddalii du ma ñëw di farfee di bàyyi fee yéen yàlla jox na leen ndam li ñi ngi ñaan yàlla na leen ndam li jik ndax da ngeen koo yelloo te nit ku nekk lam yelloo la ko yàllay jox kon ñi ngi leen di sant mérite la boo xam ne du sens seen mérite la waane di sant mboolem koo xam ne yaa ngi fi teew rawatina nag mag ñi nga xam ne si ñoo dëkk dala ak mag ñi dëkk ci commune bi yëpp bàyyiwuma kenn ñooñu dañ leen a amel njukkal loo xam ne sii bu fekkoon du taw bii danañ leen jël benn par benn waane ñi ngi ñaan ñoom suñu waajur yooyu suñ borom defal leen tawfeex defal leen jàmm defal leen sutura ba heure bii déwén fekkaat leen fi bañ mañ koo teewee te kenn bañ a manqué ci ñoom ñaanal sones bi yëpp gone yëpp suñ borom gën leen a soqali gën leen a defal jàmm ñaa ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm sa taxawaay ci lii nga xam ne mooy wàllu ndaw ñi yal na la ci yàlla gën a taxawal ba fo ci bëgg ag suñu borom agalé la man nag lama leen waxon goné yi lepp lu ñuy yëngu ma yëg ko dana ci taxaw sama kemp kemtulaay kàttan xàmmeewu ma ci daaru xofor gi ma dëkk ak dal dala gi nga xamné ne fi la nekk kon na leer awma ma xajj ci yéen gone yi na leer lepp lu ci nit di def wax ma ko taala dana taxaw ndax daño bok fi bok luñ ta seddo bok liñ mën ta seddo motax ngeen suyee ci terrain bi sécurité taxawu fi te dégguñu ñaar ñu dóorante kon yéen waa Saate waa Daaru Xofoor sant nañ leen gërëm nañ leen ASC Dala maanaam ak mboolem ASC yi nekk ci commune bi ñu ngi ñaan ci kattanuk suñ borom yàlla na ngeen dugg ci match yi ngeen jub ci jàmm àggale ko ci jàmm te benn dog maj leen a dal ñuy ñaan nag monsieur le maire Cheikh Ngom bu fekkee yaa ngi fi fii nga xam ne mooy terrain bi nañ ko defaral gone yi ndax nag nañu xam ne fenn fu nit war a nekk lii nuy yëngu war nañ leen ko defaral collecteur leen ko defaral leen ko ba bu ëllëgee suñ nekkee ci biir maanaam sécurité boo xam ne si duñu am benn jafe-jafe loolu ñu ngi koy ñaan monsieur le maire mu dox ci parce que war na ko man man nag la ma ko waxoon démb ak bërki dem mooy sama waxe tey man diirante wu ma kenn mbagg maanaam nañu xam ne lépp lu muy yëngu te ma yëg ko te loolee ma am ci part boo xam ne bu ma ko jàppalee mu dem su ma ko yëgee danaa ci def sama kéemtalaay kàttan ndax man commune bee ma ñor nekkut lu ndax commune bee ma ñor commune bi buma fi toge moma ñor suma fi togul moma ñor dana am yenen ak yenen nak ñun ko andil ci biir commune bi nit ñi tek ci seeni i lolu yagatu dara du lu ñuy wax jere ngeen jëf Allez, merci, merci. Merci beaucoup.